mu nga dimanche bële le 4 dañu woote woon au SEDAF pour remercier monsieur le président de la République ci hôpital bu mag bi mu def fii ci Touba ah, ginnaaw loolu nag ma ne woon responsable yi ñun président comme daf ñu bi muy def inauguration bi ne ñu yéen waa Mbàkke nag na ngeen góorgóorlu ah te yàlla def temps yële ci ginnaaw yëpp sax ñu ngi doon yëngutu waaye Covid bi taxoon na yu bëri amatul woon ah ñu woote woon keroog dimanche ci SEDAF bi macha allah ñëpp ñëw. ah ma jëloon fa engagement tamit ne leen bëgg naa pour liggéey bi gën a jàppandi ñu ubbi benn permanence fii ci Mbacké parce que man sama kër laa njëkk a def permanence fii ñëpp waa Mbacké ñu ngi may seede waaye tey nag parti bi mi ngi dox ma ne leen mënatuñu continuer di def ay réunion ci kër yi nañu ubbi benn permanence tey macha allah yàlla dimbali ñu Mbacké naam salle bu mag yomb fii waaye am nañ tey bureau bu mag boo xam ne mën na def réunion ba cinquante personnes waaye surtout am nañ ci kaw terrasse tey nag ma sant maire yi fi ñëw. responsable yi gis ngeen ñi fi nekk ñëpp ay Maguette Diakhaté Pape Mor Ndiaye su ma limee damay juum président conseil en tout cas institution yi république bi ñi ko yore fii ci département bi ñu ci bëri teew nañu rawatina nag fii ci commune Mbacké ñi nga xam ne ñoo sos parti bi depuis 2008 2009 ba nag ni ñi ngi fi ak ñeneen ñi nga xam ne dañu fekk si tey ak responsable parti allié yi ñooñu ñëpp ma ne leen nañu ñëw ñu waxtaan population Mbacké ak Touba ak département bi yëg ne animation politique bi tàmbaliwaat na il faut que ñu yëngu ci pour que ëllëgi si bu ñu demee ci élection ni ñu ko président sase seize communes yi nekk euh, euh, collectivités yi nekk ci département bi yëpp Benno Bokk Yaakaar man ko gagné rawatina nag commune Mbacké nga xam ne man nag ak département bi mooy gën doon suñu suñu yitte. su ko defee nag incha allah semaine bi di ñëw bu ñu génnee ci gàmmu gi ah prévoir nañ def benn tournée nemmeeku dem ci communes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi yëpp. fu ñu fa dem daje fa ak maire bi saafoonteeg moom waxtaan ak yeneen responsable yi fa nekk waaye ñeneen ñi nga xam ne tamit dañoo yor ay groupes socio politiques yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy commerçant yi muy tailleur yi muy jigéen ñi jaay ci marché bi muy jeunesse bi muy syndicaliste yi muy sama mbokk jàngale kër yi ñëpp dinañu leen dinañu leen seeti waxtaan ak ñoom pour que effectivement ñu defar ay liste électorale yoo xam ne ay liste consensuelle lay nekk yoo xam ne danañu leer ne list boobu bu génnee waa Mbacké danañ ci ji seen bopp waaye liste boo xam ne nag mu am couleuru Benno Bokk Yaakaar ànd ak pour jàppale président Macky Sall pour que yàlla may ñu ndam fii ci département Mbacké rawatina également ci commune Mbacké fi ma teg suma tànk mooy na ñu teg kuréel googu ñu waxoon keroog muy cadre départemental de concertation et d'action ñu bokk ci di xalaat di nasandoo politique moom ñëpp gaa boole ñëpp dana jafe man waxuma ñenn nañ ñëw topp ci sama gannaaw waaye li ma dul nangu nag mooy ñu toog parti bi nekk ci loolu ci naan ci tubaab léthargie nelaw amul tax fu ñu daje du ab sac ci département Mbacké ak ñun position politique bi ñu am ak poids économique bi suñu département am ñuy demati ci ay élections te département bi voté lu ñu coalition Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall man loolu ku ma xam ku ne xam ne ci loolu laa teg suma tànk et ci loolu laay liggéey liggéey bi nag tàmbali nañu ko ñi ngi koy def naka jekk ci lañ mas a nekk waaye nag duñ ci xaar kenn. man du ma réunion du ma def association duma def animation te keneen du ko def loolu moom jeex na fi yaakaar naa ku gis réunion bi ñu def keroog dimanche SEDAF gis tey ndaje mi ñu def fii ubbi permanance bi ak mobilisation jeunes yi ak ñi fi jël kàddu ak maire yi fi ñëw ak haut conseil ak ñeneen nga xam ne effectivement l'espoir du département est dans cette équipe là coordonnée par Bara Gaye loolu tamit mooy dëgg ku ci nekk wax naa leen téléphone ñenn ñi sax maa sama oto dem ba seen kër wax ak ñoom waaye politique nag kenn ku ne mën naa toog di def ay calculam waaye liggéey bi moom man li ma la wax tàmbali nañ ko te duñ ci xaar kenn parce que li ñu président sant mooy nañu animer parti bi nañu animer coalition bi nañu liggéey nañu proposer ay liste consensuelle waaye nag ci coalition lañ nekk ak ci parti te dafa am kilifa mooy le président Macky Sall te jàpp naa la moom moment venu dana def des choix parce que nag choix moom tànn da ngay tànn fas woo xam ne day gañ xam euh, bugguma sax ñu ne man je suis candidat ci lële parce que jàpp naa ne quand ci parti laa nekk ak coalition a ah, waaye yakaar naa ne quand bu fekkee ne dañuy wax profil wala dañuy wax expérience politique wala dañuy wax niveau d'engagement wala dañuy wax niveau ancrage social man ba Cekkeen laa dëkk ci département bi te 99 ba nëgë ni maa ngi yëngu fii kon jàpp naa ne maa ngi déglu nag sama position coalition parti muy président Macky Sall waaye tey jii bu ma président ne yow la ñu wóolu ci commune Mbacké pare na bu ñu ne ma Bara yow la ñu wóolu ci conseil départemental pare na